diine yépp dañoo connecté ci moom diine yahud diine nasaraan ak diine islam moo tax seen i mbir may wax naan benn dafa nuru Seydina Ibrahima moomu nag alayhi salaatu wassalaam ah mooy ki nga xam ne nii mënoo koo tudd te tuddoo kaaba gi li cee def lu am solo dafa dafa tabaxaat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 comme moom dafa bëggoon doom ju góor lool li may wax moo jiitu doom ju góor joojee su borom may ko ko te bam ko koy may boobu mi ngi am quatre-vingt-six ans wa loolu ñaare ñi fi mënatee am doom sax du bari donte mën naa am téeméeraat bi yooyu suñu borom may ko ko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 loolu nag li ci keneen mën a jànge mooy jamonoy tey jii bu doon moom kenn ñëw ne la man de damaa génn ci yàlla ne ma naala la rey bu génnee danaan paa dafa dof daa am lu ko jikkal fa may dépression nañ ko yóbbu dalal xel loolu lay daal di wax waaye du wax ne ayca bismillah loolu da nga ciy dégge topp ndigal